وبعد mbokk jullit yi ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di ko sant ci ay xéewalam di julli ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam julli googu ak xéewal googu yal na ko yàlla def ci ay ñoñom def ko ci ay saxaabaam def ko ci mboolem jullit ba bis penc gannaaw loolu ñu ñëw ci bayaan bi nga xam ne dañ koy def ci waxtu wi balaa imaam bi ñëw ñu koy waxee toujours ci fàttali ci bopp fàttali jullit ñi ci li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko mooy jullit dañ koy fàttali toujours gannaaw loolu ñi ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala loo xam ne def nañ ko ci topp yàlla danañ ko yàlla nangul ca mbaaxam nga ñi ñi nga xam ne faatu nañ ci semaine bi rawatina bokk jullit yi nga xam ne faatu nañ ci accident ba de amoon yàlla yërëm leen jëggal may cee ñu ñoom muñ ak nangu dogal yàlla ñu ci gaañu yàlla wéral leen yëkkati leen ci hôpitaux ñu am ndénkaane bu ndaw ñàkk ne imaam yeeg borom xam-xam yi nga xam ne dañ kàddu dinañ wax ci loolu waaye mbir moo xam ne bu amee ñi nga xam ne ñoo responsabilité mbir yooyu war nañoo xoolaat lan moo koy sabab njëkk ne alquran yàlla subhanahu wa taala dénkoon nañu ñu jullit ñi wax ñu ne wala tuqu aydiyakum ila tahluka bu leen di jël seen loxo wala di di ci kon lañ cay jàngee moo ne bon ñi nga xam ne ay responsable ci dëkk bi war nañoo xool nan la ci loolu bu ko defee ñi nga xam ne ñoo yore oto ak lu mel moom xool la ñuy tëral ci mbir yooyu li ngay topp ngir rek maanaam muccal ay bakkan muccal ñoom tamit seen bopp ñu ñëw ci li nga xam ne moom la ñuy fàttali te commencé woon foofu mooy ormal jullit bi comme ni nga waxee ca bayaan bi njëkk ba ne jullit ku yàlla jox orma la ko yàlla moom moo ko jox orma kon jullit war na ormal bokkam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jàngale ci hadis ne kaaba gi li muy foor foor foor bu doon toj birig par birig ba mu jeex loolu moo gën a oyof ci yàlla ñiy tuur deret jullit maanaam ñiy tuur bakkani jullit boo xam ne tuuruñ ko ci islaam maanaam tuuruñ ko ci àq islaam loolu dafay tettal fooraa yi bakkan bakkan rawatina ki nga xam ne mooy jullit ñu ne bokk na ci ni ñu ormaale bi mooy duñ ko takfir maanaam doo ko génne ci islam te amoon lu leer bokk na ci ne doo ko rey ak noo ko mën a reyee bokk na ci ne ko ak façon bu mënta bokk na ci ni nga koy armaale mooy ni ko jëw ak jullit jëw wala moom bokk na ci ne doo ko añaanee añaan nag moom dafa nekk feewal boo xam ne mën nañoo wax ne dafa tasaaroo lool si suñ société bi te ñuy añaanee ñun ñëpp boo demee ñi ngay jëriñu ci la añaanee moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ne xeet wi de dinañ dem ba nga xam ne jamono dina ñëw daa wala feebar bu wàcc woon ci ñu leen jiitu woon dina wàcc ci ñoom bañ ko laajee lan la dana kañaan nee na kañaan jikko la ci naafeq naafeq rek moom mooy kañaan jikko la ci yéefër jikko la ci ci mboolem mbindeef moo xam ne yàlla daf ko dàq ci yërmaaneem te loolu bokk na ci li nga xam ne moom moo alagoon iblis ba mu añaanee ci aadama alayhi salaam boobu la yàlla wàcce kon ab jullit bokk na ci liñ koy mooy bul ko añaanee ndaxte añaan tamit dafay yàq diine day yàq jikko te ñaar fu yàqoo ci jaam bi mooy ne kooku deseetul dara ab jullit boo xam ne diine bi yàqu na wala ay jikkoom yàpp na kooku nekkutu jullit wala desalatul dara bokk na ci ni ñuy xormaale jullit bi mooy buñ ko sàcc wala buñ ko tirise ak jullit waru di tirise wala muy tirise mbokkam jullitam te bokk na ci loolu mooy di jëf jëflanteeg moom rawatina ci wàllu njaay ngay sàcc jullit yi bokk na ci ak anam boo ko mën a defee ba ci comme ni nga koy waxee ci tëli yeeg ci place bu mat nekk nga nekk fa di jullit waroo di tricher ci place boobu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ñu xaraamal la lool nee na man xassa fa laysa minna képp koo xam ne day tricher bokk ci ñun jullit ñi te comme que yonent bi loolu la saxal mooy ne ban loolu nekkul jikko joo xam ne jikko war na euh, jullit war na kaa jikkowoo te loolu bëri na lool ci si jamono ji rawatina suñ société bi da nga gis ñoo xam ne triche mooy tax jéeye di am ci place yooyu ñuy liggéeyee triche dina indi ay problème yu bëri ci loo xam ne dafay xew ci société bi kon war nañ kaa daw ndax julit buru kaa def waxuma laa ne mu koy def bokkam julitam bokk na ci li nga xam ne bi tere na ko bu bokk ci li ñuy armaale jullit bi mooy bañ di ka bañ ab jullit warul bañ bokkam jullitam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne laa tabaaxadu wala taxaasadu wala tanaajasu yonent bi wax nañ ci hadis ne bu leen bañante te bu ngeen bañante gi nag bu ko waxee mooy ngay bañ nit ci loo xam ne mbiri àdduna la waaye bañ ni ci loo xam ne yàlla la loolu nangu nañ comme nga gis jullit boo xam ne li tax nga bañ ko mooy ne moom toppatoowul li nga xam ne moom la ko yàlla dénk mooy loo xam ne islaam la loo xam ne diine la toppatoowu ko ñu bañ ko ci loolu waaye di bañ jullit rek ngir ne moom ni du defal tax nga bañ ko ci loolu loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da kaa xaraamal jullit yi kon bokk na ci ni ñuy armaale mbokkam jullit mooy bañ di di ko bañ wala ñuy bañante ci biir bokk na ci tamit buñ ñuy dago dogante mooy ak jullit warul di mere mbokkam jullitam ndax yonent wax na ko ci hadis ba dee wala yahjura muslimun aqaahu fawqa salaata layaal yonent bi nee na jullit warul di mere wala di gàddaay mbokkam jullitam lu ëpp ñetti fan mu ne nag ku ci gën loolu bu amee mooy ka nga xam ne mooy njëkk a nuyoo mooy njëkk dindi loolu noonu kon ab jullit pour nga xamal ko mooy ne waroo kaa mere wala ngeen di dogante ndax dafay indi loo xam ne mooy féeloo ci jullit ñi te la ñu sant yàlla santuñu ko mooy jullit ñi nekk benn comme niñ ko waxee ci bayaan bi passé alquran lu ñu dégg mooy waxtasimu bi hablillahi jamian di jàppoo ci alquran jàpp ci alquran nekk benn te bu ngeen teqalikoo mukk kon loolu mënta am lu ne mboolem jikko yi yëpp dañ kaa dindi suñu diggante yi bokk na ci ni nga xam ne dinañ ko armaale jullit bi mooy mu bañ ko di gàcceel ak jullit waru gàcceel mbokkam jullitam ndaxte loolu lu xaraam la ci diine ji la war mooy mu koy dimbale sawaan mu tooñ wala mu nekk koo xam ne dañ kaa tooñ ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na unsur axaaka zaliman aw mazluman da nga dimbale sa mbokkam julit mu tooñ wala ñu tooñ waaye sama mbokkam jullit nekk ci ay jafe-jafe nga koy seetaan loolu daganu ci sharia islamiya yonent bi ba mu waxee loolu saxaaba yi dañ kaa laaj ne ko xam nañ nan la ñuy dimbalee koo xam ne dañ kaa tooñ koo xam ne moom dañ kaa tooñ jël ay àqam koo xam ne ñu koy dimbalee mooy lan taxaw ci peggam ba àq yi ñu jël ci moom ñu delloo loolu moom nekk na lu leer ci ñun waaye jullit boo xam ne tooñkat la maanaam moom moom moo tooñ nan lañ koy dimbalee yonent bi nee na da ngeen di téye ci loxoom tere ko tooñ ga gis ngeen ab jullit day tooñ nañ koy dimbalee mooy ñu wax ko dëgg fexe ba jàpp ci loxoom nam yi tooñ ak ñam yi tooñ bu bàyyi ko loolu bu ñu ko defee mooy dimbale nañ waaye ab jullit warul di seetaan mbokkam jullitam di ko gàcceel ndax loolu bokk ci li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax na ci hadis ne ma min muslimin yaqtulu musliman fi mawtinin yantaqisu fihi min irdihi wa tantahiku fihi xurmatahu illa qadahu llah azza wa jalla fi min fi mawtinin aw min mawtinin yuhibu fihi nusratahu nee na amul benn jullit boo xam ne mi ngi taxaw di gàcceel mbokkam jullitam ci ab bërëb fexe ba deram yàqu ca bërëb boobu te jullit bi waroon na ko cee dimbale mu ne lu dul ne yàlla dina ko toroxal dina ko gàcceel ci place boo xam ne bëggoon nañu dimbale ko fa waaye du ko du ko am kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu bëgg jàngale mooy ak jullit foo gisee sa mbokkam jullit ñu koy toroxal ñii xo ñii xotti xormaam na taxaw defandul fexe ba loolu ñu koy teg mu daj loolu mooy jikkoy jullit waaye foo gisee jullit ñu koy toroxal yow ngay dimbale sa ñu koy toroxal mooy boobaa yow bokkutoo ci ñoom ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñuy jàngal ci hadis bi ne képp ku ko def yàlla dina la toroxal ci place bi nga xam ne da nga bëgg ñu dimbale ko ñu dimbale la te doo ko fa am kon la war ci jullit yi mooy ñi dimbalaat comme ni nga ko waxee ci hadis bi paas nit ki noonu bokk na ci na muy joxe xorma ci jullit bi mooy bu mu ko xeeb ab jullit warul di xeeb mbokkam jullitam ab jullit nu ñëwee ci yow war nga kaa mën a nangu xam ne sa mbokk la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ne xeebaate mu ngi bokk ci jukkoy ku rëy te ku rëy ku ne naafeq nga wala ngay yëfër yonent bi jàngale na ko si hadis ne al kibru batarul xaqi wa xamtu naas rëy mooy bañ dëgg gis dëgg won ko gannaaw loolu rëy la wala ngay xeeb nit ñi koo gis muy xeeb nit ñi rek xamal ne ku rëy la te rëy bokk na ci li nga xam ne mooy jikkoy iblis te bu ñu ko waxee mooy jikkoy di koy yëfër kon ab jullit bokk na ci ni ñu koy joxee ma mooy bañ kaa xeeb noo ko gisee nangu ko xam ne sa mbokkam jullit la ndax alquran moo ñu jàngal ne na innamal muminuuna ixwatun fa aslihu naa axawaykum jullit ñëpp ay mbokk lañ kon la war ci diggante mooy ñiy defar mbokk ga bokk na ci ne waroo kaa laanu mooy di ko génnee ci yërmaane yàlla jullit def dara bakkaar ba lu mu rëy rëy nga xam ko waroo kaa ci yërmaane yàlla naan kii de yàlla du ko jéggal kii dem na safara loolu ab jullit waru kaa def ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ne ab jullit warta nekk koo xam ne dafay rëbbaati lu jullit bi def rek nga rëbb ko yóbbu ko safara loolu ab jullit du ko def te yonent bi wax na ko ci beneen hadis ne képp koo xam ne rëbb nga ab jullit yàlla dina la delloo loolu bu fekkee ne nekkul dëgg maanaam gis nga ab jullit nga génnee ko ci yërmaane yàlla bu fekkee ne ne loolu nga koy génnee ci yërmaane yàlla moom nekku ci yàlla ne na dinaa la ko delloo yow mooy yow rëbb nga yàlla dina ko delloo ci yow kon pour nga ormal sa mbokkam jullit mooy bul ko rëbb bul ko xeeb bul ko gàcceel bul ko tooñ nan ko di dimbale di dimbalante ak moom comme nu ko xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi sante loolu yëpp ci lu ñu yóbbee mooy ne yonent bi mu ngi bëgg a dajale li nga xam ne mooy xeetam mi tënk leen ci benn buum te mooy buumu yàlla bi subhanahu wa taala di alquran ak sunnaam loolu bu ñu ci nekkee mooy du ñu am lu dul alfawzu fi dunia wal axira du ñu am lu dul texe ci àddina am texe ci alaxira loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggal jullit ñi moo tax lii yëpp ci ay njàngale bu koy def ngir jullit ñi mën a tëbb ci li nga xam ne mooy système bu leen yàlla teg di alquran ak kon ñi jàpp ne bon jullit pour nga armal ko foog nga jaar ci mbir yooyu lépp lu ci bon nga fexe kaa daw la nga xam ne moo ca jub nga koy doxal ak jullit ñi ñi taxaw foofu ñaan yàlla yàlla ko ñu dégg topp نجي وحمي سواب يالا بولي نكون نجي جوتي يالا جيغل نكو ما ذلك على بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبا الله أنا أصوم إلى غير سيدنا